da ngay julli ñaari rakk boo jullee ñaari rakk rakk bu nekk gannaaw fatiha nga def laqad jaakum fukki yoon ak benn ñaari rakk rakk bu nekk gannaaw fatiha laqad jaakum fukki ak benn boo sëlmalee nga toog jël sa kurus wala sa loxo xasbunallahu wa neemal wakil xasbi allahu wa neemal wakil xasbi allahu wa neemal wakil ba juróom-ñaari yoon boo ko defee ba pare nga ne fanqalabu bi neematin min allahi wa fadlin lam yamsasum suu wa tabu ridwanallahi wallahi zul fadl azim guddul guddul ah guddul guddul déedéet dinañ leen ko bindal wax naa ko dinañ leen ko bindal da def xas bi yàlla juróom-ñaar téeméer nga teg ko ci ba nga am xasbi yàlla juróom juróom juróom-ñaar téeméer nga am eh, fan fanxalabu aaya boobu saa yoo defee téeméer nga teg ci juróom-ñaar saa yoo defee téeméer nga teg ci juróom-ñaar boo paree nga yéene li nga ci yéene yëpp nga xool ci topp ma bamtuwaat ko ngeen enregistré ko wala bu lii weesoo bu jot amee ma ma ma bindal mooy ñaari rakka ngay julli boo jullee ñaar rakka ba pare nga yéene ne yow yàlla maa ngi lay ñaan nga may ma teraanga àddina li ci biir nga toog ci sa loxo defagum xasbi yàlla wa neema wakiil juróom-ñaari yoon boo ko defee juróom-ñaari yoon nga jàng aaya boobu mooy fan xalabu ba mu jeex juróom-ñaari yoon nga defaat xasbi yàlla juróom-ñaar fukki yoon teg ci aaya boobu juróom-ñaar.